to decide. jaa ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokk internet yi di leen euh, ziar ñu ñëw ci suñu xibaar yi njëkk ci bis bi commencé ko ak doomu Sénégal bi di Sadio Mané jamono ji nak mi ngi wacc pour euh, génn fofé ci Europe ci buñu sukkandiko ci journal bi nga xamanté moy Stade yenn kaay dinañ ci ñëw ci nu mu gëna yaato waye dinañ wax ci joueur yi nga xamanté sen jot nañu officiel ak ñi nga xamanté sen jamono ji ñi ngi waxtaan ak ñom pour euh, fexé leen yobbu ci sen ay club ak sofanti ci terrain yi nga xamanté sen ay daan tegu na ci kawam dinañ ci ñëw ci nu mu gëna euh, yaato la ta lolu mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ngeen abonné te bës ko la seen bi bu ko defee dana yokk li nga xamante si ni mooy euh, dooley euh, page bi tey samedi 29 juillet bisimilah ci xibaar yi Abdou ak Guèye la ci kàddu bi ñu commencé ko ak doomu Sénégal bi nga xamante si ni mooy Jean-Louis Barthélemy Diouf officiellement joué na euh, signé na contrat foofee ca Simba FC Euh, moom capitaine génération foot bi dem na foofe ca Simba FC euh, signé na fa la nga xamante si ni mooy euh, contrat ñu bawoo ci moom wax ci ki nga xamante si nii mooy mooy Gambien bii di bu Boudian moom nag signé na foofe ca Ligue 1 ci club bi ñuy wax Ramsi fa la signé moom grand réflexion bi nga xamante ni def na ko ci Coupe d'Afrique des Nations bu u bi ñu génn moom nag mu nekk ku man lool lu muy def ku fubalu Gambie am ci moom yaakaar mu nekk xele la juddu signé na foofe ca stade de Reims ca France euh, moom Adama Boudian ñu di ko euh, ñaanal ñu bawoo ci moom jël stade yenekaay moom nag euh, mu ngi feesal ci xatu jëkk wa Sadio Mané muy tàgg Europe moom nag mi ngi war a jubali foofe ca réewu naari stade bi nag mi stade yenekaay nag mi ngi xam ne ni visite médicale yi dana ko amal ni ki ëllëg ci dimas ci incha allah waaye nag ginnaaw fukki at fukki at ak ñaar yoo xam te sin def na ko foofe ca Europe war na ca euh, Arabie euh, Saoudite waaye tamit euh, dañuy wax ba tey ci journal bii di record groupe Futurs Médias moom it ba nga ni bàyyi ko kii di Sadio Mané moom mi ngi war a dem foofee ca Arabie Saoudite war a rejoindre ki nga xamante ne mooy Cristiano Ronaldo ñu di ko ñaanal jàmm ci moom moom Sadio Mané ñu bawoo ci saajo Mané. Euh, delluwaat foofee ca Espagne wax ci li nga xamante si ni mooy classico bi waaye nag jamono ji euh, journal bi AS ni mu ko tuddee mooy El Classico américain donc classico bi nag tey mi ngi amee foofee ca Amérique su 21h jotee ci heure euh, Sénégal ñu ci xaar gan ñi nga xamante si ni jamono ji ñu ngi leen di xaar ko ci mel ni Bellingham ak Gundogan donc ñoom ñu ngi leen di xaar ci li nga xamante si ni mooy match classico boobe ñu bawoo foofu dem ca Italie wax ci soixante-six de terrain mom nak euh, dañ ko seppi loxom ci li nga xamanté si ci compétition bi nga xamanté si ni euh Liga Conference mom nak euh, qualifié won nako ko dañ ko ci mujjé dindi ba paré yëkëti ay daan tek ko ci kawam amande ko xaalis bu tol ci 20 millions d'euros waye 10 millions 10 millions daf koy fay liquide yenen 10 millions yenen 10 millions source lay euh, nek ginnaw sofanti de terrain googu nak dañu jël ki nga xamanté moy mooy Fiorentina moom moo ko rempli moo ki nga xamanté moy sofanti de terrain dafa dem Fiorentina ñëw ngir jël li nga xamanté si ni mooy

Euh, mooy doomu Norvège bii di euh, ki nga xamante si ni mooy Hans Lund moom nag euh, am na accord ak ki nga xamante si ni mooy Manchester United suñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano moom mi daal am na ñu accord ngir mu bàyyi ko foofee ca Atalanta dem ca Manchester United loolu nag di koy gën a confirmer moom match bi nga xamante si nii match amical bi nga xamante si war na dox ci diggante Bournemouth ak Atalanta tey jii moom du ko joué loolu nag club bi moom moo ko décidé moom lus moom moom moom lund mi du bokk ci marché bi kon mi ngi waajal pour dem foofee ca Paris saint ni ki ëllëg dinañu ci xam lu euh, leer wax ci ki nga xam ne mooy Sergio Reguilon moom ancien Real Madrid bii nag nekkoon foofee jaar ci FC Séville bi jóge fa dem ca Tottenham moom nag ki nga xam ne mooy Real Sociedad mi ngi ci tànkam ngir bu ko indi foofee ca këlëbam ba commencé nañu li nga xamante si ni mooy euh, waxtaan wi wax ci ki xamante si ni mooy euh, Younous Moussa moom it euh, officiel na am nañu accord accord am nañu accord verbal pour euh, ki nga xamante ni mooy Younous Younous euh, Younous mooy ki nga xamante ni mooy waa Younous Moussa moom nag dana dem foofee ca AS Milan bàyyi ko foofee ca Valence ginnaaw bëgg a dem ki nga xamante ni mi taxaw temm moom nag am na accord ak ki nga xamante ni mooy. Euh, AS euh, Milan accord bu toll ci vingt millions de euros kon euh, fii ak semaine bi balaa jeex danañ ci xam lu leer daan ko officialiste suñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano. keneen ku dem mooy James Rodriguez moom nag dem na foofee ca Brésil ca Sao Paulo moom dem na fa librement nag la fa demee ginnaaw fukki club yoo xamante si ni moom ki nga xamante si ni mooy James Rodriguez jaar na fa wax jeexalee li nga xamante si ni mooy. coupe de Europe candidat bi nag ki nga xamante si ni mooy Turquie ak Italie fas na nañoo joxante loxo pour 2032 ñu dalloo li nga xamante si ni mooy euh, euh, euro 2032 jaa jàngeen jëf mbokk yi mu nekkoon li fi rusoon ci way ay xibaar fekk ci kanam di leen fi teewaat ngir jot leen li nga xamante si ni mooy xibaar yi gën a ci wàllu tàggat yaram fii ci Waly TV jàngeen jëf